jërë ngeen jëf mbokk yi mu ngi noonu alxaaji Mbégi Jóob ak Mame Ndokh ci bi tey nag dafa am tiis wu métti rek wu nga xamante ni moo dal fii ci benn bus boo xamante ni fii ci boo avant ngay àgg Aynu Maadi balaa nga àgg yàjjim ci hôpital bu bees bi euh, benn bus boo xamante ni moo daanu foofu bus bi nag euh, d'après bi ñu xoolee li nga xamante ni moo indi jëye ji waxtaan nañ ak ña fa nekk ñoom ñu xamal ni daal dafa am benn euh, koo xamante ni dafa wéradi Euh, ku àndul ak xelam ku jigéen koo xam moo nekkoon ci tali bi di dox borom bis bi maytu ko pour la première fois euh, ku wéree di kii daw wàcc dawaat bi muy yéegaat tali bi nag bis bi di ko waat far benn pono bi dal ci benn affaire daa di wàcc foofu mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu mooy tey ñu xëy police ak li nga xamante ni mooy sapeur pompier ñëpp ñëw fi euh, bis bi nag bis la boo xamante ni bi ma laajee ñu nekkoon ci biir ñoom dañoo wax ni boo dee xool presque ay ñaari place ñeenti place mooy mooy mooy moo ci manqué woon bis bi nag xamante ni mooy Dagana bi ñu ñëwee ba passé Tivaouane jëm dëkk bi nga xamante ni jub dëkk bi ñuy wax yàjjin tuuti bala ngaa àgg ay numaadi foofu la jëye ji amee gis nga ko mu ngi noonu sapeur ñëw di jéem a yëkkati oto bi waaye nag bi ma waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy agent yi nekk fii ci sapeur pompier wax nañ ñi ginee nañ fi deux corps sans ak ñi nga xamante ni mooy huit blessés yu grave yoo xamante dañ leen évacuer mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni tey moo jot a fii ci nga xamante ni mooy Tivaouane ci buntu Tivaouane jëm Pire ci euh, dëkk boobu ñuy wax yàjjin euh, ñu ñëwoon fi tey muy accident bu metti boo xamante ni gis nga ko noonu la demee boo xoolee sax da ngay xam ne dafa mel ni ñu ay ay ay ay ay ay ay ay ay commerçant ñoo jëndoon seen i bagage dugal ko ci li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy bus bi ndax gis nañ ni ñuy fore li nga xamante ni mooy mooy bagages yi di ko dajale sapeur pompier def ci liggéey bu mucc ayib waaye police bu Tivaouane aussi ak seen commissaire euh, commissaire Diouf def ci liggéey bu mucc ayib ndax ci suba ba tey ñu ngi jaabante mbokk yi loolu lañ leen indi loon tey incha allah rabi dañuy bàyyi kon ñi nga xamante ni ñooy témoins yi nga xamante ni nañ euh, fekke nañ accident bi ñoom ñu wax nu am na ci koo xamante ni moom ci biir ak ci biir euh, bus la bokkoon nañ ko déglu moom mu wax nu exactement situation yi nan la demee bu ñu paree am na aussi yeneen inter inter ay inter intervenant yoo xamante ni ñoom wax nañ yi nga xamante ni day am foofa ci ci bërëb boobu ñoom ñu wax nu lan mooy indi jëyee jooju am na ñoo xamante ni ca biir dëkk ba lañ dëkk am na ñoo xamante ni dañ fay xëy guddeeg bëccëg suba ngoon wax nañ ñu problème yi am foofu lan ak lan ak lan moo ko indi kon mbokk ñu ñëpp nañu ànd déglu ñi nga xamante ni intervenant yooyu euh, jërë ngeen jëf mbokk yi mu ngi noonu euh, ak choc bi ñu leen doon wax fii ci yoonu yàjjin bi Euh, léegi rek bi ma ñëwee maa ngi waxtaan ak ki nga xamante ne mooy commandant sapeur bi wax na ni am na deux corps bi vie yoo xam gis na ko si ak sax blessé góor gi ñu ngi lay ziar bu baax yow ci bis bi nga nekkoon. waaw ci bis bi laa waaw moo ko indi. bon da doon daw. mais daf doon daw nag daw xel. daf doon daw xel. waaw daf doon daw. waaye yëngal na sa kàddu tuuti. Ah. da doon ah. di ko traversé. ah dox bu ko traversé. waaw doo bee ko song. waaw. ah kon ndox bi ko traversé quoi ndox bi la doon moytu. bis bi dafa feesul wala feesul woon. bon ay deux places yi def. ay deux ah. parce que ah. dem Dakar. Ah. ah Dakar ngeen départ doon dem Dakar. waaw Dakar. Dakar bis bi jëm. man ab dof daal la doon moytu ba lii lépp ñëw ci. Oh, sant yàlla bu baax a baax yow ci biir bis bi nga nekkoon sant yàlla bu baax a baax baax jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen ko situation bi noonu la demee euh, benn dof la borom bis bi doon moytu par loolu yëpp ñëw ci euh, mbokk yi mu ngi noonu alxaaji mbéy jëm ak mam dof incha allah dinañ indi leneen li ci de euh, jërë ngeen jëf mon frère maa ngi nii taxaw ak sama benn xarit boo xamante ni choc bi daf cee yem si mon frère maa ngi lay ziar dama bëggoon rek nga wax ñu exactement situation bi noonu la demee bon la Hadj situation bi yem ma ci juste mais mën naa ne deux minutes à mm. euh, bi mu amee après ci laa egg. parce mm. que man fii sama yoon la. Mm. chaque jour damay jógee Tivaouane di dem ci sama tool. muy fii ci Yagg. donc euh, bi ma egsee. premier ci participé naa ci secours bi quoi. mais li ma nettali mooy te gis naa ko quoi parce que soxna Fatou mooy xam nga rek soxna si nekk Tivaouane tax yàlla mu taw ko mu am. xeetu ah Fatou la. mu am feebaru xel. ci uh-huh. la léegi nag euh, moo ne woon ci kaw tali bi quoi di d'après di nekk ci bi daal di def yenn mm. fekk bus bi nag mu ngi daw di daw lu bare bare ci la koy moytu par ma euh, malheureusement mu saara mais hélas man li tax may def euh, intervention bi mooy mm. yàlla dafa dogal ni man fii chaque jour ma jaar fi mm. minimum dinaa fi def aller retour chaque jour mais il ne se passe pas deux semaines maximum deux semaines te accident amul ci diggante bi ñii ñu ngi naan rab la ñii ñu ngi naan leneen ak leneen la waaye man li ma jàpp ni war nañ ko mën a def élage bu ñu ko dee def te loolu maa ngi ciy interpellé le ministre euh, euh, du transport interpellé ci le préfet de la ville de Tivaouane interpellé ci le monsieur monsieur le maire euh, Diop Sy ñu xoolaat site bi tey xam ni fii li fi oto yi di daw dafa bëri il faut ñu am fi doo daan au niveau muy hôpital bu bees bi fi ñu koy tabax nii diggante boobu ba ci ay ay numaari muy buntu këru Alaaji Abdou diggante boobu foofu benn doo daan moo fa am mais diggante hôpital ak euh, bu kër Alaaji Abdou du ñu toog une semaine deux semaines yoo xam ne ni accident amul c' est impossible te loolu pour ngeen vérifier ko c' est très bu ngeen demee euh, sapeur pompier wala ñu xool gendarmerie dinañ xool sortie yi ñu fi def année bii passée en deux mille vingt deux bi ñu génn minimum minimum mat na dix ci man li ma jàpp ay kaar yu mbëkkante ay frigoriste yu mbëkkante ay oto yu mbëkkante à chaque fois niveau bii la yoon. donc dégg naa dinañ fi def doo mais ñu ci mënti gaawee nañ fi def doo parce que fii li fi am doog affaire rab kase. kon problème bi daal doo a def. non il le parce que fii oto yi li ñu fiy daw dafa bëri dafa dafa jege ab dëkk dëkk baa ngi ne mooy yaaj. et eh en même temps mooy hôpital bu bees yi ñu waaj defar. aussi dañ fiy génn euh, nu mu tuddati euh, camion yi. oto yi defar ak yooyu yëpp dañ dañ see génn donc kon lii daal pour man pour pour ko il faut ñu am ay doodaan parce diggante bi li muy am su accident il faut mu am doodaan xol laay waxee parce que am lu ma naqari parce que fii damay gis loo xam ne nii mënu ma ci dara élargi parce que nee naa la du toog deux semaines maximum maximum te accident amul fii deux semaines yu tiin c'est possible li muy am bëri na te li fiy faatu ci ci bakkan dafa bëri pour résoudre problème boobu il faut que nag. daf ci doon rawatina di ralentir. waaw ñu ñu ñu fiy ralentir parce que daan am na fële foofu wàññeeku na fa mais diggante bii nga xam ne ni moo jàpp euh, yàggit ak ci waawan nga xam ne ni HLM yu bees yi fii lañ koy def nee nañ. Mhm. donc diggante bii ci la problème bi nekk donc may jéggalu ñëpp nag. jërëjëf ñaan yàlla saafara bi jërëjëf merci beaucoup